Ziga kaay kaay kaay. ay re un Ziga bi mu ngi forme de ci loo nekk. non ay la ma def. Ah. waaw. parce que damaa xam lu muy jaay fii la buujoo. di nuyu géej waaye gépp nag fi ma jugee. xam di nuyu sama gaay yi ñu ma àndal ñoom bi ba ñoom bébé Balla bébé Mawlo gaay ma àndal xam nga entourage bi ñëpp ñoom Sira dama yooyoo gi yaa di si woo sama garaay ay say mbir bi ñoom ñëpp. waxal ci combat bi musical ngay bëre. parce damaa bëgg a woote sama gars yuy jàpp bis bi gën a taaru. mais aussi kàttan yàlla la 6. fii ñëpp dinañ gis. ma war si kawam si amu ci lu mu si xel ñaar. incha allah amu lu ma ji si gisaag incha allah. mu jeex bu xeexee ma duma ko mu daaru incha sonn fan kii sonn dama sonn xam nga moo met waaw ginnaaw ma sale yàlla ñu jëlante bi daay tur ñene dama sonn xam nga moo di sant sama ñaari waajur di sant suñu Moussa Mbacké Ba da ngay xaar man maa la gën a tàng maa la gën a pare toog sa kër nag di wër la ak yu réseaux sociaux bi nga may dëkku man bu maay yow damaa yàgg a toj damaa yàgg a bëre sama combat bi ma conseillé dama leen ba kenn conseillé man maay jaay sama bopp. Ah. barki Serigne Bamba maay jaay sama bopp kii bu laamu ñu nekkoon léegi dama koy daan. le 6 noonu la ñëwee. le 6 waa jàmm nga si kaw mbaa waaw ma fi yaa borom si. di nuyu waa Jëli Maam Jaara leen woo si combat bi ah rek bu soog a door mais maa kii du lamb waaw daa lu ma bëgg a tontu léegi dane Abdoulaye Ba ma ne daa am lu mu jëfaate jibi xaaru na garab paate goodal gay sira bëjël aba yuubel balaa na mbaw kooku lay waxal loolu dafuñu fee si kàttanu yàlla incha allah xoolal caméra yi maa ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah le 6 si kàttanu ñëpp ñëw ñu xool maga siga maanaam lu ñu wax fii xas-xasloo bëri na bëri na torop ñu xool kan moo koy dëgal si géew bi incha di woo xam nga sama ñaari garaay yi mënul ñàkk may woo Bacca Ndoye xam nga ak Assane ma leen siy woo si combat bi di woo sama gars yi ñoom Sira xam nga ñoom Moussa ñoom Daara ñoom Yero Diagne. waaw man may woo waa Diakhoune Sika Mbao di leen wax seen doom xewle na li mu ko daan defee kii day xaar kii ajaradu mbay xaar xaw ma nan ñu koy waxee kooku ajaratu xaar mbay ma jaaga moom lay wallu day xaar lu bari doole may taxaw mu amay sa koñ yónni ñaari booy sama koñ ma nooxu billaahi sareet lañ yore ma yor oto. ñu jaam pere ma noqu leen lu ko weede ay 15 man ma noqu ba ñu réglé loolu ñu ko defati. ci àdduna. da moom laa koy defee di ci woo waa jaam nga si Gambaaw di woo sama grand ñoom Samat ñoom Babel Demba Thiam ñoom Zé gars yi ñoo sori si combat bi soxla nañ ñu ñu jàpp.